Serigne Touba Fallé Faraat bu ngeen demee HLM Ray bi fekk leen fa ngeen ñëw ti leen seen marché euh, seen magasin ma nga fa seen i produits c'est disponible partout ci réew mi ba ci sous région bi numéro téléphone bi di 77 555 11 11 77 806 15 19 ñu leen di jaajëfal bu baax a baax euh, Ababacar. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm sama waaj ñay par say da ngay gis ni euh, boy wax damay nekk ci téléphone bi sëgg ci di xool Maysa Mbaye mi yor live bi la amul confiance ci moom lay <laughs> duggal yu ko neex ci live motax il faut que may contrôler. Eh. xam nga Ndiaye yow nekkoo ci digital bi sa yoon nekku ci parrainage sax doo lijjanti mais man il faut ma koy lijjanti. man dama koo xam. Ah. xam nga problème bi mooy. Ah. Eh, booy jëm loo mënul ñu lay seetaan ñu njëkk a sonn. Ah. tey su ma ñëwoon di ci concentré wu di ci jéem damay réer. laaj yu neex a ji am na. waaw ciy wax. waaw lu ne. mais internet moom lu ne lañ ci wax moom yaay xool loolu la ci neex rek nga dem suivre ko <laughs> internet moom Ndiaye. ya tan sebulan bu la rek. lu ne nekk di wóor. fii de moom lu dee moom am ngay lu wax bu ñu di gërëm suñu partenaire yi. Mhm. ki da fay wax lo xamantene ne ji manam kàcce leum commune leum le andi li ñuy joy seen nakaru xol andi ko ci xalaas. Mhm. mom Grand Dakar la dekk neena Grand Dakar fi ñu dëkk ci côté terrain jànkalaar. Mhm. jaaykati yàmbaay yeeg tuxkati yamba yi len sonal. joo. Hmm, da nga xam foofu. Ndiaye yow xalaat bi da ko def police wala gendarmerie waa Ndiaye yow yii bu ñu la ko joxee Ndiaye xam nañ fuñ koy waa Ndiaye yow ñii lii nga def nii yoole man lan lay woowee yow. yoole man. <laughs> mais abaa ñii ñoo jara yoole ñii ñoo jara dénoncé te li ci gën a métti mooy nee na police dafay def descente gendarmerie dañ fay def descente dañuy jàpp xale yi ñaar moo mën a am bu ñëwee li ñu yor dañ koy suul ci suuf. dañuy am ay pièces. te xam nga koo jàpput ak yàmba. munoo ko yóbbu déedéet. ñi ñu jàpp ak yàmba yóbbu leen bu ñu demee danañ leen àtte jugé leen tëj leen quinze jours wala un mois ñu génn nekkaat ci. nekkaat ci waar wi ba pare am nañ ay complices yoo xam ne wala ay ñoo xam ne ñoo leen di signaleel bu policier yi di waaj a ñëw. Ah, xoolal te lu gën a doy waar ci yenn quartier yi ñuy jaaye yàmba mooy xale yu ndaw yi nga xamante ne ji ay tuut tànk lañu kenn amul ci ñoom contrôle man su may jënd ceew yàmba damay woo booy bi surtout ni ñu utiliser booy taalibe yi. saa ma yónni ko. ne ko demal fay xam nga yow doo ko gis muy dem nga koy laaj looy jënd. doo xam li booy bi di jënd parce que booy bi dañ koy yónni rek. tey demal kee nga jox ko nangam dina am lu la jox ngeen jënd. par contre nag man su ma jugee ñëw ci yow di jënd yàmba tuxkatu yàmba boo gisee da nga koy xam. Mm-hmm, mm-hmm. boo ko ne jàkk rek xam ne kii tuxkatu yàmba. Mm-hmm. léeg-léeg nga gis nit ci télé wala nga jàkkaarloo nit muy wax mu leer ne kii nekku am ci réew mi yenn toj-toj ñuy wax ci réew mi yenn tojaange yi ñuy def ci réew mi. ki koy wax il n'est pas conscient. tiim nit jël paaka teg ci baatam. def ko naka su dul noonu. dëgg loolu nit ku ànd ak ki noppam ànd ak xelam munu koo def. gars yi yenn saa dañ fiy gëj de. Hmm? ma ne gars yi yenn saa dañ fiy gëj de dañ fi toog ni nga yaakaar ni ñu ngi fi fekk gëj nañ fi. kii di wax nag. li mu bëgg mooy moom bàyyiwul kenn. non non police eh, mais non Ndiaye. man ambianceur la mhm. damay toog fii di ambiance yi ngay wax ni ñu naan nañ seet kii ndax man tuxuma naanu ma nekkuma ci yooyu. man damay ambiance rek. ñu ngi la koy jiiñ nag. ndax yegg nga wax abaa loo xamante ne <laughs> ji loolu man la loolu naan kii ndax ànd naag. sa réewane yenn saa mu yegg ba ci ndof di yow yenn saa ma réew ba jaaxal sama bopp waaw. <laughs> nga ni kii la la def. loolu day kamara nag moom ñu xam ne fañ lay féetale <laughs> en tout cas kii di wax daal Ababacar. Hmm. nee na police gendarmerie ministère de l'intérieur. na ñëpp jug dimbale leen ci parce que déjà am na sax ñu dëkkoon ca quartier ba ñoo xam ne bañ seeni doom yaaxoo ca quartier ba moo tax ñu tuxu dem feneen déglu ko dañ leen dimbal la ñuy ñaan te xam naa li may wax ni ñi ma dëkkal yëpp buñ ko dékkee dinañ ci jàpp gendarmerie jàppal nañu ci police jàppal nañu ci ministère de l'intérieur jot ci parce que ñun population bu Grand Dakar sonn nañu surtout ñun ñu dëkkee côté terrain jàngalaan xale yi yàmbaa bi dañ koy jaay comme ndoxum naan

def yenn kii ci suuf ci lañ koy suul suuf oto yi taatu wala ñuy ñu ci di suñu xëyee neuf heures ci la di temps bi fi police bi di wàcc nag day fekk xale yi cornet ba di ko cornet di jaay vingt quatre sur vingt kenn mënatu fee yar xale sa doom danay romb ñu yónni ko nga ñëw wax ñu saaga loolu daal moo xew fii Grand police bi day su leen fekkee dara da leen yóbbu parce que la police ne peut pas les amener sans preuve su leen fekkee fii da leen di yóbbu mais suñ defee benn 15 jours ñu ñëwaat li may wax nii nag ministère de l'intérieur war nañ ci dimbali tribunal dimbali ñu ci parce que quoi qu'on puisse di mënoo fi am sa kër ñu ci bari daw nañ toxo parce que tamit mënoo yor say doom war leen a war a mën a yar des vagabonds ñëw fii di same la derrière loolu lañuy yendoo ba guddi ñu taal seen i moto ci kanam au vu et au su de tout le monde di agressé ji au vu et au su de tout le monde di ba ci kanamu yàlla ci yàmbaab bi ak baraamam bi sonn nañ ci trop ñun ñu dëkkee Dene Jankalaar sonn nañ ci Grand Dakar police bi changé nañ commissaire commissaire bi ñoo di def liggéey bu mucc ayib waaye xale dañuy suul yëf yi te bu ñu suulee yëf yi nga ñëw pelle des fois doo tombé fi ñu suulee. dañ koy suul ci suuf des fois soo tombee fu ñu ko boo yoroon ay xaj sax ñu mën di remercier mais amuñu loolu ñun daal bu ñu dimbali woon gendarmerie jàpp ci orcatis jàpp ci santar jàpp ci police grand jàppale police grand ñu def liggéey bi ñu bale xale yi xale yi tamit bu leen la leen teg une semaine la leen teg un mois la leen teg deux mois la leen xale yi ñëwaat fii ba mujjee def police bi bëri bu teg mbaam dañuy dàqanteeg police dañoo dem ba faale tudd police bi dañuy dàqanteeg police bi. ñun nag ku ñu ci dimbali ñu jël ku ñu ci dimbali ñu jël. am na ku ma wax ku dëkk ci côté wala ko xam foofu nee na léeg nga gis kenn ku fob ab liir ab xale. Mm-hmm. nga yaakaar ne day doxantoo moom fekk ci kuusu xale bi la kaawu joint yi. Ah. ñu koy ñoo bari pexe moom ngi yàq zone ba de. beneen zone a ngi boo xam ne abaa lu doy waar a fay xew. da ngay génn ci boobu zone. foog ni lii xew ci zone boobu foofu rek lay xew. am na ci zone yëpp de njaayum yàmbaa meeg mi am na ci zone yëpp de dafa fekk am na ñoo xam ni ñoo mën a wax rek ñu génn wax mais njaay réew mii li fi nekk. saa yi mais xam nga ma jaaxal. mooy ci grande surface gis ñu def rayon amul fi ci réew mi déedéet. te yàmbaa jaa ngi mel ne xorom ci réew mi. c'est que jamaa fu muy jógee. yow parce que dem ci grande surface rek gis ñu def. amul place rayon kii nii waaw léegi nag yàmbaa ju bari ci réew mi fu muy jógee. dañ koy bàyyi fii Ndiaye dañ koy bàyyi de. waa léegi duñ détruire tool yi. fu mu nekk. ah um umpu leen nag de. <laughs> umpu leen de ñi ko war a def de xamul xam nañ fi tool yi yàmbaa yi nekk. parce que Ndiaye ne ci réew yu ñu mën a wax ak yoo xam ne mënuñu ko wax. bari na de. seetloo benn affaire léegi léeg nga romb benn boutique surtout prêt à porter mu leer la fii dafa nekk ci marchandise boo ko calculer matul cent mille. dëgg la. bitig ba rafet lool di dox rafet lool. borom bitig ba di dawal ay oto yu. mu leer la ne place bi kii li muy fay fii seer na seer goo xam ne boo calculer marchandise mi ci bitig bi mun ta fay location. dëgg la de. pour yow lu muy dundee. Ah, arrière boutique. <laughs> am na ay bitig yu ndaw yu ne ci biir bitig. arrière boutique lañ ko damay bañ ko wool waaye man Ndiaye man Ndiaye man ministre bi nga xam moo yor intérieur réew mi ak ministre bi yor yoonu réew mi hmm. ministre de la ma koy jox non non communication ab moom problème c'est que moom da ci mën dara xam nga <laughs> mais intérieur ak justice moo la ëpp problème buñ ma ne woon waxal lu la neex waaw ah, déggaat naa bi te yàlla suñu borom yàlla bëri na sutura dañ koo dagg nañ ko dagg nañ ko mooy zone mobile waaw dagg nañ ko ay yàlla baax na ah yàlla yàlla nañu yàlla dool sutura na yàlla sàmmal ñu réew mi amiin waay yàlla yàlla parce que réew mi Ndiaye dafa neexoon bari ambiance bari kaf bari reetaan ñëpp séq jàmm séq salaam mais tey Ndiaye dem nañ ba politique yi pousse nañ ñu ba ñuy noonante ñun ci suñu biir te kenn du la def dara maanaam da ngay far fii kii far fële nga bëgg ko def sa noon parce que fee la far. ah mais maa ngi dégg ñooy wax yi dañuy woote dialogue toog waxtaan xëy na mu jur dara. loolu moo gën ci réew mi. moo gën ci réew mi nañ toog waxtaan. moo gën ci réew mi xat-xat yeeg xale yee ci ñàkk seen bakket Ndiaye ministre du ci dee ci dee politicien du ci dee doomam du ci dee. waaw néew doole rek ngay dégg néew ji doole rek la ñuy tëj seen i doom ñuy am problème mu jël avocat am problème orientation fu ñu mën a dem pour lijjanti seen doom yi pendant ce temps ñow ñi ñi ñi man néew ma bu kenn xeex pour une cause mhm. man su ma gisoon tey cause bu ko jar damay xeex ba jeex waaye nag danga koy defar xel dëgg la koy defar xel dëgg xam nga ne lii ñu def nii tey tey ku ci jàng ñu ci bari seeni doom xëyuñu jàngi ñu ci bëri seeni doom bi dix heures jotee la njàng ma dàkk te léegi ñun ñu góor góorlu ba fayal suñuy doom weer wi bésub tey ak bu démb ba ak yii di ñëw ñu génnee ko ci ñoom di ñu waroon a jàng est-ce que ñoom dañu koy rembourser kenn du ko rembourser de ci benn kenn du ko rembourser sa doom ci wàllu ay xam-xam ak yooyu di ko jox ay renforcement du am yi ay perte rek ci yàlla moo tax politique yi il faut ñu xool seen intérêt ñoom xool intéret askan wi mais looloo looloo looloo manque Afrique nag ku la ciy mën di wax ak kum ci mën di doon intérêt yi boppam lay jiital malheureusement maa ngi woon ci euh, ñu dem ci beneen diwaan. nañ dem kii Kër Massar la dëkk fu ñuy wax quartier sant yàlla dafa am benn waay bu bon boo xamante ne jii nee na buñ ci teelut a jóg wax ci moom dana saay-saaya xale yi waa ji fajar lay jóg di seet ku mu yekkataan hmm? moom nag dafa yeewu fajar di doxantu dajeek waa ji ci ruq am lu ko waji wax am lu ko waji wan ba mu génnee nag dana xaaral parce que fi waji di fréquenter daf bari ay école yu fi nekk hmm. ay xalé yu ndaw ñoo fi nek balay musiba day am da ka doom wax Ababacar deglu dama bëggoon alerter parents yi dëkke Kër saar ak képp kuy jigéen sax na nga moytu ci sant yàlla de Kër saar man daal comme je suis matinale si suba si suma ma jullee fajar ba pare damay dem doxantu ji ba ci tali bi fii naan arjuma ji ñi fi dëkkee dinañ ko xam léegi man ni ma demee doxantu ba ñibbi si waat tali karo bi fi mu jeexee léegi koñ yooyu jot foofu noonu yëpp man côté boobu laa dëkkee koñ yooyu noonu mooy koñ yu xaw noonu la koñ daal c'est assez étroit waaw bi mu ñëwee ba foofu noonu dugg ci koñ rek di dox ni may doxee ma seen benn waaye muy ñëw léegi waa comme dañoo naroon tase ma ne xaaral ma décalé tuuti nu ma décalé ma may ko mu jàll bu ñëwee bu ñëwee ba egg si sama hauteur rek mu ne ma booy yow dama laa gens ba sama tubéy xumb man faalew ma ko puisque may defoon samay écouteur mais li ma doon déglu fooru donc dégg naa baax li ma wax mais ma def miin nii dégguma li ma wax ma romb kon mais nu ma ko rombee noonu ndox ñaari paari rek ma gersu waat ko ndekete mu ñu taxaw di ma fixé di ma xool li ma gersoo noonu gis ko rek mu yëkkati yërëm bi taxawal ndekete taxawal na affaire bi li ma ma xool ko mari waa ma tourné waat continuer sama dox commencé na di waaxu mais ma doon waaxu noonu di dem maay gersu en même temps ko xoolaale li ma gersu yëpp waa jaañi taxaw bougéwul man dama jaaxle fajar gi ay huit heures fii bëri am na école primaire bëri na ay école comme ni ma leen ko bi ma doon dem rek maa ngi romb xale yi di dem jàngi te koñ boobu xale yi dañ koy fréquenter parce que man tous les matins je peux dire pratiquement même chemin bi laay emprunté damay romb ay xale xale yu ndaw yu jigéen yu góor ñëpp dima romb di jàngi wóorul moo taxoon ma bëgg alerter parents yi ak jigéen yi daal quartier sant yàlla de are jumaa ji Kër Massar daal ñi fi dëkk nay xam côté bi nañ moytu bu baax ku ci mën yóbbu sa doom ba école ba nga yóbbu ko ko xamanteni day genn tamit su mune jël yoon bu sûr bo xamanteni dina am ay nit. xalaas. fan la quartier bi fété keur Massar la nek quartier sante yalla mais nak bu mu ñi dëkk ci côté yoy aussi japp ne fofu rek la xew manam waji day déplacé wu. bu tax tamit ñay ku ñu romb rek di ko éviter de. Adit, mais amna nit nak mom bu ni melee da ngay ñaw ñoxtu ci mom donc gis ko romb di daw d' na parce ah, que du yëfi nit sax du respect waaye nag ñaaw njort mooy muccal doomu aadama aba waaw démb ñoo problème am ah d' accord démb fi indi woon benn femme boo xamante ne ji nee na moom sëyam day waaj a tas ndax aaw bi mu fekk si moo ko dëddale ak jëkkëram te avant moom am na ñaar kii ko c'est vice versa dégg nga. doon woote tey ci suba ci xalaas bi te mu ne borom këram aawoom moo tax moom moo borom këram mënatuñoo nekk man nag sama wujju sama ñaareel moo tax tey bu sama jëkkër dëdduma te maa ngi toog ba tey ci biir kër gi sëy depuis may am 15 ans ci sama 16 ma am sama taaw jóge Dakar nekkal xale bu ndaw sëy ci dëkk àll nangu nag di sëy comme si ñu nekk ci àll bi mën naa waat ci alxuraan li ma ko defal man sama goro mbokka mu fi wàcc sax du ko ko defal ndax da taxaw di ko wax mais seen problème mooy ñoom comme que jubóowuñu woon ak sama jëkkër kon man duñu mën a juboo ak man sama rak jëkkër bu ñu ñaanee sama jëkkër sama jëkkër mayu leen sax ci man lañ koy sippi léegi man dama daan def sama jëkkër buñ ko ñaanee mu bañ dama jël sama àll di ko joxe ndax bañ rek man ñu may mere wala ñu dima sikk mais ba ñu demee ba mu yàgg sama jëkkër dalaa ñëw ci kër gu mag bi bu nuyoowee sax duñ ko fay wala di ko mere wala am yenn wax yoo xam dañ ko koy wax mu yàgg fekk ñu commencé njaboot am fa benn nekk kese léegi nag bañ fa amee benn néeg ko ah gannaaw léegi demee ne mënoo fee am jaam mënuma am jaam te ñu ngi am benn néeg suñu njaboot jaa ngi di dajaloo te ñoo wut fii gannaaw dëkk àll yi seeru fi léegi ci la wut ci wetu kër gi benn ceere ñu commencé ko di tabax tabax bi sama bop la ko yenoo ya, bam mu jeex ak lox sama bop la ko yenoo ya, bam mu jeex ba ni ni ni ni ni ma nekk ci déedéet léegi la ba ma tuxoo fa kër gi ba ma ñu dëkk ci ci sama kër gi ma am fi sama beneen doom bu jigéen eh. ma am fi sama benn doom bu jigéen eh. mais gis nga dafa melni ni ba ma ci la sama nakar gëna a yokk dama taxu sama nakar ma yaaka sama nakar dina ma dëgg mais sama nakar dafa gëna pero tiyaga ur buma toge nami tibo yobu sunyo kar buma sunan dene sunyo kar naka asume hindi si dunik dunalin ku indalal tayi jibu yar jote sembu brong kar ablum yobu bende ne puyo yobu bende buma mai para bende jas ya, ma ala dilen ku jo dilen ku jo dalip ya, dilen ku ne hale wala diko sa me sama dar ne munu jumabak dan neng ada जो हम ब्रूम कर दी दस मर tak बस हम ब्रूम कर तक तक ने बोले mu cey wax mais bam tekkee kooku mu ñëw même bu fekkoon da koo takk mu ñëw sax ñu nekk si jàmm sama ya, kau, ba tey waxuma ba lagi ke, léegi kii kii fi sëy si yàggul di vocalante ak suñu waa kër tey ji lépp lu xew fi mu woote fële di ko fa léegi ay vocalam fuité léegi mu am ku mu koy jiñ ci famille bi su ma expliqué mu clair damay ma mu ko ko ñu comprendre yaa ngi léegi kooku noonu yóbbu sama wujj bi police ñu yéege ko wàcc ba kooku am fi coow ba ñibbi seen kër mais sama goro bi na ne ko boo day yomb trop jógal ci sa bopp te nga sa wujj bi ëpplewu la fi dara te kooku dem na plus de huit mois nekkul ci kër ba mu demee nag soo borom bébé de man kii ndax lii lépp mu mooy dund loo nii musuma koo dund ndax yàgg naa am ay jafe-jafe mais jafe-jafe yi mu ma indil nii tey musuma koo dund dégg nga man naa wut solution lu ma génnee ci kii ndax bu duloo dina ma dugal ci lu ma xamul ndax moom ay xaritam sax ñu ngi naan ma kii da nga koo liggéey dalaa liggéey ba nga takk ko loolu yëpp